abonné leen ci suñu chaîne YouTube saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju a lañu koy tàmbalee gis-gisam ci banlieue ndakaaru bi awlu lool jamono yi ak waame gu mitti rax ci dolli wote yu gaare gréew mënuñoo dem mënuñoo dikk yéeni bi ne safari aftu yi ñooy sàkku yokkuteem seen i payoor tax ñu gaare wote ya diiram ñetti fan moo war lit ñenn ci banlieue bi danoo mujj dox wala ñeneen ña di xaari waxtu yu waxtu ci arekaar yi te gaar bu téyeer moom foo sànni mbàtt mu tak saxaar ga fees la def ci garage Colobane donte ñu ne rapide yaa nga doon fexe wuutu aftu yi waaye seen lim doyul rax ci dolli nag sekkeen ak njaweenu chauffeur yi bëggoon yokk paas yi profité ci situation bi su dee nag wàllu waame gi di inondation yi ak nawet bi Sud Quotidien ne jëwriñ ju dénk ndox mi ak naata naatangoom yore wàllu xeex beeg waame googee doon nañu janook taskatu xibaar yi ngir xamal askan wi nguur geeg matuwaay yi mu ci jël pexe yu am solo yoo xamante ni taxawal nañ ko ngir ak oyofal bi lu toll ci téeméer ak juróom fukki bërëb yu nuy amali jumtukaay ñoo di ndox moomee ci juróom-ñeent fukki commune yu Sénégal Sénégal ca Touba Mbàkke ñu ne programme ñaar fukk ak ñetti milliards la ñu fay doxal bokk na ca taxawalum ñaari bassin ànd ca ak ONAS bi yore liggéey bi ca liggéey boobee mu ngi avancé bu baax li lépp nag taxul état bi garanti ne ak waame moom du am fenn ci Touba ana fu état bi ne loolee népp laaj la yéene kaay bi direct news xëyee lu jëm ci wàllu tukki mi ci anam yi dëppawul ak yoon ndax ñu ne géej gaa ngi wéy di lekk gune yi rek keroog fukk ak juróom ñett yu téer ca wakaam ay nit yu organisé yooyu xeeti tukki ñaari wéere ngi ca tiituñ ca dara mbaa du dafa am baara yëgoo diggante ñooñee dossier yu boité ak ñi leen war a kar gàntal seen i pexe libération mel ni ku cay tontu ca naan état ngi fi kay ne ñetti départ rek gàntal nanu ko ñaar ya doon waaje ca ndar ak jógoo beneen ba ñu karee ko ca baax ñi gouvernement bi indi ay leeralam ci le soleil bu njëkk lu ñeel bakkan ya rot ca wakaam ñu ne du fukk ak juróom-ñett waaye fukk ak juróom-benn seize ca bato marine bi du mooy ki mbëkk gaal gi ñu teg ca ne am na ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom tukki ci anam yu dëppawul yoon yu nu kar ca Maroc di ay doomu Sénégal ca ñu ngi gi ngir wàññi leen baax la observateur ne aji tukki sénégalais yi nag ñoom yaakaar bu tas lañu fa nekkee ci yéenikaay bi kuñ naan ca baaba topp am ñaar fukki at ak juróom-ñaar ne moom dootul dugg mu ci xeeti tukki yi nga xamante ni coono ak tumuranke rek la ko dugal ca fax ca réewum Tunisie naka noonu sénégalais yi fa teer yi ca doon gént wutali ca tugal observateur ne ñoom it naqar lañu fa nekkee ki jafe-jafey neen jumtukaay yu bariwul salaire di payoor yu tuuti ca néew ay pexey siifeeki yàkkataan reportage la fa yéenikaay bu taaxam El Hadj Elimane Ndour amal ci jafe yi fa Sénégal sénégalais yi nekkee ci bëccëg gune foofu ca Sfax ca Tunisie le quotidien ñëw ci état bi ak ni mu taxawee ngir dakkal moomeem xeetu tukki ministre Abdou Karim Fofana porte-parole bu gouvernement bi ne ci njëlbeenu at bi rek juróomi téeméer ak fanweeri nit jàpp nañ leen ñeent fukk ak juróom-ñaari yam di aji yóbbuwaatee sisir nañ ca it juróom-ñeenti gaal ak juróomi moteur gendarmerie moom teg na loxo téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci ñu bëggoon tukki ci yooyu anam téeméeri ak juróom-ñaar fukk ak ñett di doomu Sénégal fukk ak ñaar ñu fekk baax bitim réew diggante Karang Joal Mbour Saly Pointe Sarène Diouloulou Pikine Saint-Louis wàllu politique le mandat xëy président ñu ne ca toogu président ca palais ba ak xereñam gépp xam-xam bi jaar-jaari macha allah donte it ñu ne mu ngi ci à la traite jamono yi terewul bokk na ci ñiy tànn buur 2024 di faiseur de roi ci waxin ak mission bu am solo bi ko président Macky Sall dénk ngir mu déglul ko natt PC ñi taxaw samp seen ndënd ci biir Benno Bokk Yaakaar yéene kaay bi di réew mi moom ne président Sall jamono yi moo jaaxal ay farandoom ak pataaral gim boole ci tànneef ak mbër a demal 2024 la ci teg bi moom xamal ñu ne ci juróom-ñetti weer yi des ci départ moom président Macky taxul mu wàññi njaxlaf gi ci liggéey bi dina amal sax ñu ne remaniement di yeesal ñeel nguur gi ndorteelu weeru ut Amadou Ba dina ca yebbeekuwaale poste sport ak élevage charge mu yanuwaale boobaak léegi gouvernement bi ñu ne buy may président Sall lay doon mu yeggalee projet ak liggéey bi ngir Sénégal ngir mën a génn ci làng gi ci anam yu taaru wàllu sport yéenekaay bi di stade wax ci tuxum Sadio Mané ca Arabie Saoudite kaay bi ne yëf yi ku mooy wul daañ ko nase ci Tokyo ngir kon demam moom Sadio Mané ca Al Nassr wàllu làmb sunu làmb ne Ama Baldé Gris Bordeaux nas nañu ko benn fan ci weeru octobre 2023 Pikine d'accord nanu waa Fass ñooy mbase jamono yi ndax ñu ne Ama Baldé ak Abdou Bakhoum signé nañu démb Gris Bordeaux moom weeru décembre wala janvier 2024 moo ko gënal Ibrahima Diop di xamle ci yéenekaay bi ne arène bi nag waa Fass nañu xam ne moo mënu ko stade yéenekaay njort ne ku moywul fa jëm dëgg mooy cib ñàkk jaaroo taal diggante CNG bi ak écurie Fass